Mhm. c'est très très difficile. Mhm. parce que Kouham Makissal, voilà il il prend pas euh, des gants pour pour def dara mais Gisnene, depuis qu'il a déclaré qu'il renonçait gars yi carte blanche il peine à donner le nom de l'heure choisi mais pourquoi parce que pour moi, joxe Tourbi, que maîtriser l'effet du Tourbi c'est ça C'est ci la ne c'est-à-dire moom dafa nekk ci benn dafay anticiper voilà il est en train d'anticiper sur euh, les dégâts collatéraux mhm. euh, de son de son choix pour maîtriser le, le, le plus possible ceux qui ne seront pas choisis pour moi c'est ce mën a yé comprendre ne moo choix bi mhm. parce que tey dit choisir quelqu'un parmi dix ou cent c'est c'est facile mais son objectif, comme il l'a dit, comme il a pu créer une charte, auditionnelle les potentiels candidats, c'est que quand il aura donné son choix, que les, tous les autres qui étaient candidats puissent se mettre derrière le choix. Et déjà, <laughs> il y a des candidats potentiels, il y a quel que soit le choix, ils seront candidats. Déjà, son travail là est déjà l'objectif de départ mënatu ko réaliser donc pour moi, loolu la il prend le temps qu'il faut pour peut-être même su fait ne dina am ay velléités yuy yuy génn ci candidat yooyu nga potentiel yi réduire au moins de moitié comme ça mun bañ a nekk pëccaxoo parce qu'aujourd'hui, si moi, Sall note des am na sax ay tour yu ñuy avancé ah <laughs> bëgguma wax fii nag euh, euh, am tour euh, couloir les ah. autres auront le temps <laughs> voilà ah. mais sous su fekkee ni dafa wax kenn. derrière mu am 10 personnes. de Benno. Mm-hmm. qui se retrouvent candidats. Mm-hmm. mais c'est dire que le pouvoir est perdu d'avance hein. donc donc donc mën c'est une stratégie du président Macky Sall. mais bien bàyyi affaire bi di dem ba li ci des <laughs> bare bareetul. mu doog a xam nga candidature aussi dafa ah. sérieuse su dee da nga bëgg a candidat il faut que tu te prépares. Ah très tôt comme ni ñu ko Amna sànq. Mm-hmm. am yu la war tey jii su même même mën na nekk stratégie. Euh, Mohamed. Mhm. président Macky parce que nous avons nañ que nous jël candidat Benno. donc vous candidat Benno, vous pouvez bénéficier peut-être député vous bu que dañuy jël député wala maire mairie mais ki ñu jëlul vous fekkee ni mais il faut que parrainage citoyen léegi vous avez bu temps ba ba le temps ba nga même sous le jëlul tu n'auras pas la possibilité d'être derrière candidat. parce que tu n'auras pas que gars mais gars <laughs> non. gars gars <laughs> c'est-à-dire euh. à cache-cache aussi bien le président mon mi pour bloquer peut-être pour retrouver autant aussi nous mhm. dañu bëgg a candidat mais ñoon duñ xaar parce que ñoom leen président du leen candidat quel que soit son choix Nous, nous ñu ci terrain bi ci président Macky taxaw na sax leen. candidat yi nañ di responsable. les voilà donc mu exercice boo xam bu bu doy la bu pour président Macky Mm. parce que aussi euh, ambition yi aussi dafa bari. c'est pas facile ñu bari dañu bëgg a nekk. et surtout enjeu bi. enjeu bi dafa bari mais. <laughs> Euh. lu ci mënti am moom derrière aussi certainement il aura d'autres moyens parce que Boula la waxee nga bañ aussi peut-être que. ah waaw ah, ah, les waxul du ñak <laughs> du ñak yooyu mu tégal ah, toog est-ce que tu ci génn benn tegal la ko nga rentrer dans les rangs mën na mais je pense que tout parce que aussi il faut que ñoom ah nañu cette semaine voilà bon je sais pas seen candidat parce que aussi ñom euh, le combat là euh, dañ ci am retard sax. Mhm. parce li ci président Macky Sall nak du ci Kenen, ku muy tànn. donc euh, le plus tôt peut-être sera le mieux aussi pour eux. pour que mhm. ñu mën am sax chance am sax chance. tout à fait pour dem deuxième tour. parce que pour man lool moy objectif bi. mi parce premier tour mom xalatuma ah déedéet kenn gagné ko dafa leer. alors Ndeye Fatou Macky Sall donc qui marche toujours hein, à son à son rythme. Hein, à part de caméléon. Qui sonol ken sonalu ko hein. Il marche. Euh, librement et, euh, puis à son rythme. Hein. Voilà, si vous connaît le nom de leur Eric, nous le dit. Oui, je sais, souffle na mako quoi, mais ça nous m'a wax fini. Xamna ki mi tan puy wax na mako même. Ah mais donne-nous la primeur donc, pour nous aider. Faut partager. Ñu mën sé commander. Ouais, mu ngi déjà ñun moom yéen ñi sax xam ngeen ko. muy tànn kii kii kii tànn mos nekk damay ragal damay ragal tête de poids yi woo ñu woo ñu ci suuf naan mais grand boo leen xamee boo leen tànn wax leen ñu ko bokk ndey fa la question waaw. ah xanaa ñu répété wu rek le président man nee naa la ki muy tànn kooku xam na ne moom lay tànn ñoom ñaar waxtaanee nañ ko ba pare. ah oui ñeneen ñi am ñu ñu tànnu ka nar a am surprise mais ki ñuy tànn moom du am surprise. Hmm. ñoom ñaar tëgg nañ ko ba pare. fi ne nii yàqale dong moo ci des. ah oui nañ ko ba pare yàq ko rek moo ci des. loolu mooy li dëgg. est-ce que ci démarche prétendent yi mën na nañu. jot mën nañu jot xam ne ne peut-être tànneef yi kii la wala kii la wala wala kii. <laughs> sauf que démarche yi nag moom jaaxal ñu ci bëri dañ ne dafa mel ni Ndeye Fatou xam na. xam nga Ndeye ko wax <laughs> ko wax loo waaye xam na. yéeguma tinuma euh. leen daal xam naa ko si mooy. Euh. ñoom ñaar xam waxtaan nañ euh. président ak ki ki kii nar a en tout cas nekk kim nar a nekk directeur de campagne am. ah oh, wax na ko. Mhm. mooy nar a nekk ah directeur de campagne am. donc ñoom ñaar ñu ngi doon seen i bu campagne rek. léegi nag yéex yéex bi. Mhm. c'est que il veut regarder son monde.

wiire nga ciy teg il veut maîtriser son monde mm-hmm. te keroog waxoon na ko xam président Macky Sall ay waxam moom jarul caaxaanee fii la fi 2019 bu ngoonee bàcc yi keroog nee na premier tour la bëgg a jàll caaxaanul de caaxaanul de moo tax loolu laa expliqué foowul réewul et puis opposition bi nañ ko jël très au sérieux en fait loolu mooy objectif am te ci lay dox te yéexaayu parrainage bi benn indice la ci mm-hmm. ni ñu yéexalee date démarage démarrage bi mais aussi yéex a génnee candidat bi ba tey tamit stratégie la ci li mu bëgg. Mhm. parce que tamit nu mu gën a yéexee rek muy gën a bon si ñu nar a demal seen bopp. gaa ñu war a bëri nanu pare daal. moo gën si ñoom mais bu ñuy pare yi mu ngi koy yëg. Mhm. <laughs> li ñu daan sëgg dee si giddee la. <laughs> foo jaar dee. c'est un ancien ministre de l'intérieur. ah oui moo tax xam na li muy def. Mhm. ay ay moom yëfu max lay def ci suuf lay mhm. président fi nga xamee ne bëgg na képp gars yi mooy fi mu jëlee ko fa audition ak parcours enquête. tu penses que audition c'est pas pour savoir les intentions des uns et des autres alors que le choix est déjà fait. oui mais c'est pour savoir qui est qui. Hmm. que pense qui. xaw ma <laughs> loolu mooy loolu daal. en tout cas daal président def na choix am ñun ñoo ko yëgagul mais kim choisir sax xam na ne moom moo nar a nekk le choix. du président et puis moom sax wax na ko bon le choix est très clair. il est très clair dans sa tête et dans la tête du futur candidat. te bu mu la bett sax bu ñu paree présidentielle su dee ñoom dañu rester au pouvoir moom mu dem assemblée nationale. a ah demul fenn mu ngi ci réew mi.